non la man li ma gis moom dafa ñëw wàcc si taxi eh, léegi lu mu wàccee si taxi bi beneen booy bi ñëw benn booy boobu noonu lu ñu jàpp mu ñëw fekkee moom dafa yor benn euh, genre bagage yooyu noonu ak sac ak pomme ak euh, banaan ak orange waaw après lu mu wàccee booy bi ñëw ñu tasa booy eh, xale bu jigéen bi léegi moom ñu jàpp lu mu yor mu tëj ah, tëjaat après eh, kii bi nu ma tudd eh, butel mu yor booy bi booy bi dafa yor benn butel ñu tëj ko si suuf waaw luñ ko tëjee na après xale bi résisté ñu jàmm ko fii après xale bi commencé daan ñu daan ci kaw booy bi waaw après mu jamaate ko encore fii encore ñu jamaate ko si ween bi encore parce que ñett jam la waaw mais naan balaa muy ñëw fekkee damaa xaw a sori tuuti parce que aw ma booy yi day ñëw si man mais. ñoom police Grand Yoff day ñëw chaque jour du ñu ramasser booy mu ne non moom moom nangu ñu ñëw léegi toog sama wet parce que police Grand Yoff dañuy ñëw ñu ramasser booy yi tout le temps waaw léegi di ñu fekkee ñaari booy ñu ngi foofu toog ñaari boobu booy yooyu ñu daw fekke booy bi beneen booy bi dafa yor benn kafe kafe boobu moo tax ñu jàpp booy bi sinon duñu ko jàpp non ñu ñoo jóg dem jàppale xale bi balaa ñu ñëw naa fekkente ne comme dafa xaw a sori tuuti balaa ñu ñëw lu mu yuuxee la ñuy dégg balaa ñu essi fekkente ne euh, trop tard daal la ñu ñëwee mais après ñu ñu pexe pexe pour ñu jàpp booy bi. yéen a jàpp booy bi. waaw ah man de depuis li ma fii ñëw dañuy agressé booy dañuy agressé mais pour rey démb laa commencé gis noonu parce que yàggoo ma fi. non xale bi kay moom saa bu muy rombee foofu dañu may nuyoo ñoom ñëpp presque dañu may nuyoo parce que maa ngi fii jaay ba pare xam nga jaaykat café laa damay jaay may jaayee noonu. gaa yi dañuy génne ba pare si boutique yu ndaw yi sama booy moo fi nekk dañuy ñëw ñu kii quoi ñu jëndal ñu ba pare dañu may noo daal amul problème moom.